si uh-huh. pourtant yéegul waroon na monter tey waroon nañ dépasser Sotiba uh-huh. waaye c'est parce que dafa am ñoo xam ne liggéeyuñu ci réew mi wu ci bari nag bari nañ ci ay milliards uh-huh. ci doomu réew mi waaye liggéeyuñu réew mi parce que Sotiba bi muy créé bi ñu koy créé en mille yi ngeen di sol yëpp ci yu rafet yu baax waruñu ko woon di jële foofu ñun ñoo ko waroon kon ne di koy defar ba muy doy ba ñu koy jaay bitim réew c'est parce que à moment donné on n'a pas travaillé dañoo liggéeyul ci réew mi. liggéey ñu on a parlé on a machin y a des hommes politiques qui se sont def defal seen bopp alal bu dul jeex hommes politiques yi ngay gis ñu nekk ay milliardaires en Afrique au Sénégal. pourtant juste ay hommes politiques lañ pourtant gisoo dara loo xam ne teg nañ ko fi ci lu loo xam ne à partir de 2000 ay ñoom Ablaye bi mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. avant kenn deful woon dara pourtant amoon ñaata ñaata xool leen ay milliardaires yi nga daan dégg moment boobu ay ñoom Sow Ndiaye bu na ay machin ay ñooñu ñëpp ay yooñu ñooñu ñooñu ban ban société lañ def ba muy continuer tey jii na société ko depuis yi i sët ñu ngi continuer def nañ mieux que maamaati maam yoo xam ne ñoo leen wala fi mhm. kon nañu liggéey d'abord mëtal suñu bopp mhm. mëtal suñu liggéey fexe def suñu kamtalaay kattan ba lekk bi d'abord dañ commencé di lekk ba suuf parce que tey jii loolu ñu autosuffisance ci li nga xam ne moom moo <laughs> li ñuy bay Aliou léegi ku la ku la xañ ceeb te am na ñoo xam ne tey bu ñu indiwul woon seen ceeb yow yow nga am loola metti am na xam ne bu ñu woon seen mbokk ngeen di xuloo xuloo xuloo xuloo mburu mburu mburu mburu bi ngeen xëccoo naan dañ koy yokk mais mburu ne ñoom ñoo leen a pour mën a am beneen bi ngeen mën a am seen kiiwu bopp seen fariñu bopp pour mën a defar seen kii donc lan ngeen mën a wax doo leen noppi góorgóorlu reyante téye seen làmmiñ reyante ba mënal seen bopp ëllëg boo leen taxaw moi je l'appelle du fractal. du. du fractal pas pas du frontal. da ngay gis guy di ko bu di buuxanteeg guy mais dangay ngay jéem da ngay dagg ndànk di dagg di dagg di dagg chaque jour bu ñëwee nga dagg. xotti da ngay jékki-jékki gis guy gi ne rës. Mm. ah waa ji kii na waaye di buuxante. bu lay buuxante yaaw jàll dox di buuxante naan da ngay ak Balla Gaye ça ne marchera pas soyez intelligents soyons intelligents essayons de travailler intelligemment ñu liggéey ak xel ci réew mi fexe ba créer ay usines xale yi di liggéey am doole ñi ci suuf bés bu ñu ñëwee dans vingt ans cinquante ans dañ fa fekk loo xam ne dañ leen may confiance dañ leen may bu leen di permettre ñu ñëw taxaw jàkkaarloo na leen ah léegi doy na nag doy na nag lii ñun ñoo koy defar ñun tam lii la ñuy jaayee mhm. yéen lii ngeen ñu jaay ñun lii lañ ñuy jaay waaye ñële bu ñu leen imposé ceeb ne leen ceeb bi lii lañ koy jaayee bateau bi moo koy indi suñu bateau bu ñu ci paree ñun pour ñu am suñu bénéfice lii lañ koy jaay da koy jënd par parce que yéen yaa leen soxla ceeb wala ngeen dem lekk dugub boobu te dugub bi sax boo ko doon lekk yéen ñëpp du doy parce que am ngeen suuf am ngeen dex pour pour pour pour mhm. weer adduna bi ñu ngi liggéey ci juróom-ñeenti weer ñu ngi liggéey ñu ngi tourné ak seen i machine di xëcc suuf si di def ay culture irriguée di génne ndox bi di ko saabaat ci tool yi bu bu nooree jotee dañuy am lu ñu bëgg bu nawet jotee dañuy am lu ñu bëgg waaye ñun nawet la ñuy xaar ñu ngi dépendant toujours amuñu ay tracteur bu ñu jaayul tracteur du ñu nekk bu leen neexee ñu téye seen tracteur bu la neexee ñu téye seen engrais suñu engrais matul uh-huh. donc sa dañu li may wax nii yëpp c'est juste pour dire que dañu matlewul fa dañoo dañoo matlewul waaye li wala jaay di wax buum bu mm-hmm. daggul dikk nañ ciy nekk euh, di ci di ci xëcc ndànk ndànk mm-hmm. rek ba keroog muy ñëw xëcc bi xëccum xel la dégg nga waaw xëccum xel la kay am mënul nekk xëccum doole lépp xel koy def mm-hmm. ça moom c'est sûr bu ñu jàllee ci deuxième point bi ñu dem euh, ci wàllum euh, élection yi et consort ñu gis ni fu mu toll nii fi réew yëpp a ah, ci Afrique dañuy gis à chaque fois élection yi buy waaj a jub tension yi dafay yéeg li nga xam ne moom moo di violence dafay gën a bëri tamit li nga xam ne moom moo di bouchon ak perte de temps dafay gën a am ñu koy gën a saytu Aliou Sow c'est yi eh, eh ben euh, demal ah, demal seet euh, ci administration bi ñëpp dem nañ ci dem nañ liggéey dem nañ dem nañ dem nañ campagne électorale mu nekk kayit yoo xam tey jii nii euh, euh, euh, madame Sarr bu ko bëggoon tey jii nii boo demee ci yenn béréb yi doo ko am. Ah. parce que tout simplement dañu naan xaaral parce que diw nekk fi ndax signature yi kayit yi kenn mënu ko signé. ndax diw mm-hmm. doomu Sénégal nga nekk ci réew mi juddoo ci réew mi yow tey boo soxlawee benn kayit dañ la xaaral. parce que yow a xaar parce que yow ak man ñun du ay priorité ñi am ñoo xam ne ñoo ñooy prioritaire yi. mooy ñi nga xam ne dañoo téye réew mi ngan ko ko mm-hmm. ñuy bi ñuy defee seen campagne électorale yi mooy li ma doon rek alal yooyu au lieu mu créer ay entreprise mhm. il faut mu créer ay campagne électorale pour mën a nax seen le sénégalais d'en bas maanaam euh, euh, euh, orienté leen ci benn yoon boo xam ne ba pare di leen xulooloo ñoom ci seen biir ba fexe ba téyewaat réew mi ndax mën di continuer di am ñoom alal pendant ce temps yi ci suuf ñoom dañuy continuer di torox. Mhm. et c'est tout le temps comme ça booy xool tey jii nii man man munu man man man man man man <laughs> xam lu ma gën a jaaxal mooy mooy mooy ndeysaan. <laughs> c'est c'est extraordinaire parce que boo koy xalaat sax sa xol bi dafay jeex. Mm-hmm. parce que da gis ay ay ay tey jii nii ñi nekk ci nguur gi nii yor ay ay ay ay ay ay oto yoo xam ne. Mm-hmm. wala ñuy jënd ay oto yoo xam ne def ci ay millions da nga naan ñii nii fan la ñuy jëlee xaalis bi. Mm-hmm. lii nii dans un pays normal dañ la naan après sa campagne électorale. yow dañuy dem dañuy defal audit. Mm. xool fan nga jëlee xaalis bi nga campagne mais xool fi nga jëlee sa xaalis bi nga campagne day am comptabilité bu fiable ci sa xaalis bi nga dépensé yëpp bu fekkee ne 15 la. Mm. danañ ko xam. Mm. waaye fii da ngay def lu la neex. da ngay da ngay da ngay da ngay distribuer alal bu la neex dégg naa barki dem Farba Ngom moo doon distribuer ay alal xaw ma fan. ma ko doon sànni ah, oto la yéeg yor yor billet yi. dinaa nii mais xam nga xam nga loolu. <laughs> population bi di daw di for mais. Ah, ah. loolu c'est parce que damaa ñàkk doole rek <laughs> man awma doole quoi. waaye waaye waaye loolu su ma ko mënoon faj man. man dinaa ko faj. parce que parce que parce que parce que parce que kooku kooku gënuñu te réew mi ñun ñoo ko bokk amaana sax xëy na moom ñun li ñu mën ci réew mi moom mënu ko pour pourtant kooku dañu nangu mu def loolu ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañu leen gis te loolu man wax rek laa ci man mënuma dara et je vois ça ñu ngi toroxal ay doomu adama au ñu jël alal boobu yóbbu dajale ko créer ay société nee naa leen Sénégal fi ju fukki fukki million ak juróom lañu wala juróom il suffisait que ne juróomi million sénégalais dëkk juróomi million ñu liggéey normalement entre vingt cinq ak cinquante ans ñu am ñaar fukki at ak juróom ak juróom fukki at ñu liggéey normalement di xëy di gontu di gagné xaalis di fay ay impôt di produire quelque chose rek produire la ak ci secteur bu la neex nag mbay mi service yi industrie yi agroalimentaire où vous voulez élevage bi juróomi nit juróomi million Sénégal rek ñu liggéey rek ñoom mun nañ dundal ñi ci des mun nañ dundal juróomi million wala ñeenti million retraités yi te mun nañ toppatoo juróomi million xale yi nga xam ne ñoom ñooy jàng te mënaguñu amaguñu temps pour liggéey loolu bu ñu ko defee mooy Sénégal mët na xaw ma ndax dégg ngeen baax li ma leen wax donc mais pourtant juróomi million nit yooyu mënuñu fexe ba ñu liggéey amuñu ay société yu doy est-ce que gis ngeen Sénégal ay nit di fi créer ay société ay sénégalais ay doomu sénégalais di fi créer ay société yoo xam ne da gis ñu ne société sàngam diw 500 am na am na am na juróomi téeméer ay xaw ma comment dire ay junni nit boo xam ne moom moo leen di moom moo leen di moom moo leen di fay chaque jour. di leen faya di leen fay laa wax. Mm-hmm. fay bu leer di leen faj. IPM bu ñu feebaree dem hôpital faju gratuitement di leen cotiser loo seen retraite di ko di fay ñoom seen i impôt normalement parce que xaalis boobu bés bu fi nekkee rek ku nekk di ko produire xaalis boobu par force day des ci réew mi parce que dañ koy dañ dañ dañ koy bool dañ koy dañ koy séddoo day day day jóge si man dem ci soxla si jóge day tourner parce que ci su ñun lay nekk ci suñu biir waaye loolu duñ ko def ñoom da ngay gis ay Sénégal ay nit ñoo xam ne dañoo ay milliards mm-hmm. mais amuñu société bu ñu créé amuñ dara mais su ay milliardaires lañu du ñu fay impôt chaque année wala chaque ñetti weer ñu wàcceel la oto boo xam ne quatre-vingts lay jar kenn du leen laaj fan ngeen jëlee xaalis bi. kenn leen laaj ñaata ngay fay impôt buñ bu la neexee dañuy bind benn kayit bu at bi deewee ne ñun amuñu lan lu ñu déclaré maanaam ñun gagné wuñu dara te pourtant année bi ci topp nga gisaat leen ñu jëndaatal ñetti 4 80 millions. Mm-hmm. te pourtant kenn du leen wax dara. Aliou Sow loolu dëkk bi ñoo ko bokk. Euh, loolu war na mën a yee Sénégalais yi parce que ci période campagne bi. Mm-hmm. li nga wax moom Farba Ngom. Mm-hmm. li mu def amaana war na ko a jomba euh, li nga def. mais ñëpp dañu boole du dëgg mhm. mais euh, li man fi may ci li may euh, ñëw rek mooy euh, ñii di def campagne mhm. dañu yor seen xaalis mhm. di dugg ci askan bi te bu ñu faloo doo leen gis de ah. da ngay gis ku romb ñii di yëngal gerte ñii bu ñu rombee jaay ka taxaw ñii di dugg may ka sax bu ñu fa rombee dañ fay dugg ndax lan bëgg ku leen voteel ah, seen soxla moo leen yëkkati te ñenn ñi nga xam ne ñooy population bi mënuñ ci dara. lu ñu ci mën koo wax kan ngay voté danaan la ki may may xaalis laay voté. mais xam nga moo xam nga ñun aussi bu mhm. de personnellement dama jóg pour pour defee neneen. parce que dama bu ma defee neen a comprendre mhm. ñoo tax may wax mhm. parce que ñeneen ñi xam nañ bu baax li may wax ndax dëgg loolu du dëgg ana ama na xëy na may móolu yàlla na diw yàlla na machin yi kii yàlla lu ko xam nga yooyu waaye fii yàlla rek a fi nekk mhm. man sénégalais yi ñoo ma tax a jóg mhm. boo gisee may waxee nii c'est mhm. parce que dama bëgg sénégalais bi bi bi ñu ne Barthélémy Dias ko rey wala reyu ko ana ana njabootam kooku ak papam ak yaayam ak magam ay magam naqar bi ñu am Ndiaga Diop Ndiaga boobu dañ ko yónni woon dafa am ñoo xam ne ñoo nekkoon ci nguur gi yónni woon ko pour ñu dem attaquer benn mairie ñooñu tey ji nii ñu ngi fi ba tey ñooñu ñooñu ko yónni woon sax amaan am na su ñoo xam ne xëy na tey ay candidat la ñu amaatal ñeneen nit ñoo xam ne ñu ngi seen mais loolu est-ce que mën a yee ñoom mhm. sax ñu téye seen doom yi wala ñoom sax mag ñi ñun ay jeunes dañ consciente ci li xew ci réew mi parce que mhm. kenn doful ku nekk yaa ngi gis est-ce que ñu suñu bopp yor suñuy carte xaar bés bu rafet ñu dem def parce que violence yi ngay gis fii jaru ko ñañu koy defal jaruñu ko mais ñoom sa soxla nga nga fi toogal mais ñoom ñëpp kenn am su programme hmm? eh, par exemple par exemple ñii dañuy wax euh, euh, ñu mag ñi quoi ñu nga ñu mag ñi kandaa yi ngay dégg nii ñu naan ñu mag lañu ah, ñoom kandaa benn bokk yeeg ay mais ñoom ñoom lan lan la ñu mën a ndakaaru par exemple je sais pas man Abdoulaye Diouf Sarr mais je sais demal Yoff léegi après Yoff moom tëb na Yoff léegi. Mhm. xawluñu sax jéemuñu sax comprendre kii lan la jot a def Yoff lu positif jéemuñu sax comprendre kii alal bi mu yor alal bi mu yor laa wax. Mhm. naan dafa bëgg maire de Dakar di gën di yéeg rek yéen ngeen di gën di wàcc. moom alal bi mu yor yéen jéemu sax seet fan la ko jëlee. yéen seen yoon nekk yéen votal leen ko rek. problème yi am ci goxam. ak problème yi am ci biir goxam demal Philippe xool li fa xew. genre dossier bu ci Philippe. bu tawee dañuy fii maa ngi maa ngi ñëw ci dossier mm. boobu après. am na ci ci Philippe ci ci biir ci biir ci biir hôpital euh, hôpital boo xam ne ay ay ay dañuy tëdd ni ay mbóot ay kenn xamul ngay gis foofu ci seen kaw. ci kaw tamit non a il xamul la parce que man bala ngaa jël nit di ko yéegal. ci beneen stade mais jëmal xool li mu def ci goxam ndax baax na wala baaxul. Mm-hmm. xam nga dëkk bi pour ñu changer ko il faut que ñuy ñuy contrôler nit ñi il faut ñu leen di contrôler di xool nit ñi lan lañ def euh, man man par exemple yéen mënu leen mm-hmm. ñi voté ñi ñu nar a voté Abdoulaye Diouf Sall yëpp xamuñu Abdoulaye Diouf Sall lan la def xamuñu lan la liggéey xamuñu sax mun ñu la expliquer lan moo Abdoulaye Diouf Sall même ne serait benn affaire bu ndaw liggéey na ko liggéey na ko yow quand même euh, benn affaire bu ndaw oui mais ñun dugguñu pour affaire bu ndaw Euh, le euh, Fatima mais mais moom moo ngi liggéey on peut dire. lan mooy moo ngi liggéey problème moo liggéey mooy lan par exemple man xam nga la ma bëgg nga ñëw ne ma Abdoulaye Diouf lii la def man gëm naa ni man man Abdoulaye Diouf Sarr man man xëy na peut-être que c'est au bon vouloir du prince mais man Abdoulaye Diouf man pour man ah, à part euh, Diouf la sant ak Sarr moo xam mais man gëwuma ne Abdoulaye Diouf Sarr war na mën a nekk maire Dakar man ba pour man. Euh, Aliou Sow loolu dafa nekk loo xam ne sa avis personnel. parce que concernant euh, mais damay laaj lan moo tax nga wax loolu. xam nga man aussi du ma mhm. ne euh, xam nga du ma nekk ay moo ngi liggéey te doo expliquer mu ngi liggéey. Mhm. dama naan li ngi liggéey parce que lii Abdoulaye Diouf Sarr def loo fi comme ça ñu waxtaan. Mhm. ma wax la ni loolu a a intervenir moom mooy rek Sénégal dafay jafe soppi surtout système bi. dafay jafe soppi lu tax parce Euh, politiciens yi dañu xam sénégalais yi. wala bokk mhm. dañu xam li ëpp ci sénégalais yi. Euh, ñi nga xam ne être euh, seen niveau jàng yàggul foofu. wala dañ leen di assoiffé comme ni nga wax noonu xiif loolu la. ba tey jii par exemple yow. yow da nga am problème benn cinq 5000 francs mhm. problème 1000 francs ñu ñun la 5000 nga ni t-shirt nga ni wala vaccin nga ni wala mhm. nangam nga ni donc. xëy na loolu moo tax Fatima naan loolu mooy problème bi loolu mooy problème bi sa sa dire politique bi <laughs> xëy dina changer ji ah xëy na mais ba tey euh, dafa am lu des si li nga xam tey ji moom mooy ñu xool intérêt général mhm. mais Sénégal toujours intérêt personnel toujours soit mbokk la soit mhm. euh, xarit la mhm. soit intérêt bi la surtout moom moo si ëpp sax xaalis bi parce que ki ëpp xaalis en si campagne bi mu ëpp chance u gagner euh, xam nga ko Euh, li ñu bëgg li ñuy revendiquer li ñu bëgg mooy réew mi jëm kanam li ñu bëgg moom mooy tey ji par exemple euh, euh, cinq mille boobu dix mille boobu vingt mille boobu deux mille boobu ñu nga xam ne dañ dañ ko jël Euh, di ko pasar pasare ñu bàyyi ko si fond bi bi nga xam tey jii. Euh, buñ leen fale ñu mën a am lu am benn programme bi dina ko dérouler. Mm-hmm. cadre de bi changé. Mm-hmm. Euh, xale yi am orientation jàng bi faj bi cest à yooyu yëpp. commune bi nga naan du sax du sax li nga xam moo compétence am mais au moins am na lu mu si mën a lu mu si mën a gàddu wala lu mu mën a orienté. Mm-hmm. xale yi ñu ñu am avenir cest à pour man foofu la ñu war a séntu Sénégal. loolu <laughs> loolu nag. Euh, dafa dafay jafe. Euh, Aliou Sow ndax euh, Sénégal dañu dañu xiif na dañu sonn. dañoo sonn yaay mooy bâtiment ñu <laughs> bàyyi. Ah, cas bi compliqué na am na am na c'est difficile. c'est c'est c'est trop compliqué mais yéen. te tey 5 millions yi 5 millions yi ma ko di wax léegi. campagne ba campagne nga koy teg bët. waa loolu la des mooy comme mais soo leen jot sa jot bay ay 5000 la. comme ni ko waxee c'est-à-dire di nga nga xam yow acteur culturel nga nga am fa war war a organiser wala yëpp mais doo mos jot si fonds yi te fonds baa ngi fi mais. fonds bi si leneen lañ koy détourner je vous bi dëkk bi Sénégal mi nee naa leen. wax naa leen ci 5 millions de Sénégalais yi war a liggéey rek régler bi. la mais dëkk bi ah ci fukki at nañ ko lijjanti waaye yu bari il ñu tegee ko ne. waaw te yooyu Fatima bu ñu fii. Mhm. Sénégal yi ñu déglu. Mhm. ñun ñu wax leen solution ni dëkk bi nii. Mhm. ci fukki at. c'est possible mën nañ ko lijjanti parce que mën na nekk. il suffit juste jël li fi nekk def ko fi nga ko war a def mais am na ñoo xam ne nag. li may wax ni bu naree am. am na ñoo xam ne dinañ la móolu. dinañ la tab dëmm dinañ buñ la mënee posone danañ la posone wala mm-hmm. ñu sosal la parce que du ñu bëgg affaire bi yegg. Mm-hmm. parce que xam nañ ne bu yeggee ñoom dootul baax ci ñoom te ñoom li eh, population bu baax ci population intéressé wu leen li leen intéressé mooy muy continuer di baax ci ñoom te ñooñu ñoo fi nekk te mosuñu junni ci réew mi mosuñu junni. dëgg mm-hmm. la mosuñu ko de. ñoom ñoo téye ñoom ñoo contrôler réew mi. te buñ fi toogoon ba midi ma wax leen d'accord incha allah Aline Sow bu fi toogoon ba midi di nga leen wax euh, lu gën a yaatu loo xam ne nii nekk na ay euh, problème ay jàngoro fii nii ci suñu réew concernant géewum politique bi. Mm. ñu amoon euh, mbégte déglu la sa rubrique actualité ñu bàyyi la nga tàggatoo mbokk téléspectateur. tàggatoo bi dama si bëggoon anticiper si benn mbir rek dama gis tey ci fajar gi. Mm-hmm. benn benn benn benn benn benn nag bu bu bu tëb ci autoroute bi. mais imaginer nag boobu souffrance bi mu war a am métit bi mu war a am. moom lu mu la def ci bay na bi da parce que ci oto la nekkoon amaana xëy na dugal nañ ko bu baax oto buy daw ci autoroute yaa ngi imaginer nag bi bu munoon yuuxu munoon jooy am métit yaa ngi imaginer métit bi nag boobu am ci autoroute bi ah, la c'est rigolo mais man maa ngi imaginer métit bi nag boobu nag bi di am man ma gis ko bi muy tëb noonu mm-hmm. c'est vrai euh, euh, euh, kii daf ma mos a benn wax bu ma choqué Dame benn xaritu benn bakkenam mm. bu bu oto bi fees moom mu yëg ci kaw ñuy dem ci autoroute bi ndeysaan ñu dem rek déggatuñu waaj mm-hmm. ndekk ne waaju daanu a ci ay un kilomètre xaw ma deux kilomètres ci ginnaaw ñëw fekk ko mu tas oh. xam nga xam nga am na yoo xam ne il faut ñu koy surveiller parce que kii def loolu noonu jël kooku dugal jël euh, euh, mala boobu dugal ko non c'est